leneen lu yees ci ay xibaar yu ñee rekk wàllum célébrité yi fii ci biir réew mi bilay lay yoon di ki nga xam ni moom moo di nag imaam Makhtar Gueye mi vis président bu ONG islamique Jamra ak benn doomam cundum bi nga xam ni moom la ko yàlla dénk mu yuyoo rekk ci turu Ndeye faatu Gueye war a am sax lu toll ci fukki at ak juróom-ñett moom moo réer mër ay mbokkam niki aljuma ji weesu fukki fan ak ñeent ci weeru février waral tamit ba papam mbokkam yi jegeñaaleem yeeg dëkkandoo yi ku ci nekk rek am nga foo jóg jaar fa ci sa ruq ngir di ko wër rawatina sax fa nga xam ne moom moo di cité Djily Mbaye bi mu dëkk te imam Makhtar Gueye di seede ni rek doomam mësul sax def lu ni wala mu xalaat ko ci moom te sax tàggu woon na ko ni day defi sport comme nam ko daan defee saasu su ne rek ci géeju Besseyawoo gi nga xam ni tàmm na fay dem di defi di nga xam ni moom moo di esportam mu jaaxle lool nag moom imam maxtar Gueye waral tamit ba mu bind ab bataaxal ba jébbal ko commissaire central bu Ndakaaru di wuyoo rek ci turu monsieur El Hadj Cheikh Dramé ci boobu bataaxal sax moom imam Makhtar Gueye mi ngi cey fàttali rek ni ca atum 2016 dafa amoon nag nit koo xam ne dako doon woo téléphone maanaam di ko menacé di ko wax ni rek su tëjul gémmiñam ci yenn yi xew fii ci biir réew mi maanaam dina ko daal di rek gis ci li nga xam ne ni moom moo di ci doomam benn doomam bu jigéen bi ko yàlla dénk waral tamit ba mu porte woon plainte ci jamono yooyu ba ñu tegoon loxo sax ki nga xam ni moom moo doon wax jëf ju ni mel ci ndimbalu nag imam Massamba Diop mi président exécutif bu Jamra ginnaaw ba mu ca defee la ca war moom ak directeur général national bu police di monsieur Oumar Mal misantoon ñi mu jiite ngi rek ñu daal di def la ca war ba sax jàppoon nañu waa jooju ba tëjoon ko ba fi nekk nii mu ngi ci biir kaso bi ci fàttali ba tey moom Ndeye faatu Gueye mi jamono ji mi ngi rek nekk ab collégienne di def classe su cinquième ci benn école privée bu nekkee fii ci biir réew mi di ñu xamal papam mu jaaxle lool tey sàkku rek ngir ku gis doomam jooju mu daal di koy teel a avertir maanaam mu daal di koy teela a yëgal rek mu daal di mën a jëli doomam jooju ndax tamit jamono ji jaaxle na te xolam bi jeex na lool ci li nga xam ni moom mooy anam wi nga xamee ni giseewu ko doomam ci koo xam ne dafa génnoon rek tàggu ko dem sport yi ba tey dikkaatul mu war a am fi nekk nii 24 heures maanaam benn bés boo xam ne nii rek toog na ko gisul doomam ci koo xam ne tamit mësul def lu ni mel mu jaaxle lool tax ba yenn planète bi fépp foo xool ñu ngi ko fay euh, jéem a jébaane ci fàttali ba tey ci li nga xam ne ni rek moo ñeel wàllu Makhtar Gueye ak li ko dal ci doomam ji moom ci jamono yi weesu ci li nga xam ne ni moom moo di réseaux sociaux bi di Facebook jógoon na ci ba di ci dànkaafu ki nga xam ni moom moo di Calista Sine rek da koo menacé ginnaaw ay commentaires yoo xam ne liir na ko mu bind ko jëmee ko ci moom ba tax sax euh, Mouradi wax ni day daal di rek plainte ndax dootul nangooti benn menacé ak di teg ci deram loo xam ne ni rek xel attenu ko ba tax na nag boobu ba tey daal waxoon na ni rek dootul may kenn koo xam ne doomu aadama nga nga génn di wax wala nga koy menacé wala ngay teg ci deram lenn loo xam ne ni tey jii arrangé wu ko. mu mel ni rek foofu la xibaar yi gënoon a fës ci célébrité yi daal di buur yi ñu leen di jox dig daje niki rek suba bu soobee yàlla jërë ngeen jëf ci déglu bi.